ما أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله. ديام بيتي أك كونتونتمون لي نيو أوديتور جي فام ييب باسكو تاميت ليغا واخ نونو فلو لا بو خامني ليغي لا دا فا ياغنا غانغراني سوسيتي بي مي ليغي لا ا ترافير لي ريزو ليغي لا انفورماسيون بي غنا جالا مي ياغنا تا نك لولو نك دوفوار لا تي بيب سيتويان nga jël ko euh, ba ci sawaar mooy tey wax jëf am na loo xam ne nag euh, ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu sax ñuy wax sax ñaari sénégalais liñ dégg te dafay jaadu rek ñuy àddu ci yu mel nii looloo waral suma teewaay fi teewaay fii euh, ci émission bi nga xam ne moo doon wareef parce que nag am naa occupation yu xat sama temps xat na lool waaye nag comme que yàlla dañ nattoo ñu war di sensibiliser la jeunesse di wax ak ñoom ci li nga xam ne tey Euh, mën na jur ëllëg ay jëyi ah bu ñu yàlla may occasion rek ñuy wax parce que nag am na ñoo xam ne euh, dañ war a fay ñuy wax waaye am na ñoo xam ne dañ war a fay ñuy noppi parce Sénégal nag euh, bëri na ñuy wax te yàlla xam ni da waru ñoo wax parce que li ñuy wax manipulation la ak yàqu-yàqu parce que boo xoolee à travers les réseaux ñi ëpp lu ñuy wax ay ñaaw téef ak manipulation la ñuy gën di déglu te nag loolu doxalu dëkk dëkk nag génnante ay ayib génnante lu bon taxul dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze virgule pour cent des musulmans yàlla lu lu mu sib la ayib uññantu ay ayib al istixaali bu uñu bil xalq yi mais maanaam tey di gëstu nit moom lu bon te di ko weer bokk na ci jikko yi nga xam ne yàlla da ko sib bokk na ci jikko yoo xam ne bu nekk amee ci yow mënuloo jaamu yàlla lu yàlla nangu al istixaalu bu uñu bil xalq yi moy di geustu nit di limbati nit du xol ci mu lu bon te diko sam ci mbedd mi te loolu nak dafa nek ben fléau nek nak nit ñi melni lu melni dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy concours te loolu nak dekk bu dekk bu delu ginaaw rek loolu ci la bok te nak nit ñi amante am ay bax bax dañuy xol lu bax ci nit diko wax te or que nag ki nga gën a xam ni moo nekk ci devant son écran suba ba ngoon di di teg deru nit diko sam saam lañu lañ suivre kon nag nañu nañu nañu defaraat suñuy toogaay xam ne dëkk bi ñoo ko moom nañ ko defaraat li nga wax nag ci ndaw yi nga xam ne dañuy fabu di dem à l'étranger di jaar ci voie boo xam ne tey njàqare jaaxle sonn dem ba sa bakken di ci dem yooyu yooyu moo ci ëpp euh, réseau yi moo tax sax information bi sax di jàll mais ba mu xewee yàgg na te nag ci nekk da ko war a def sa mbiru bopp ku ci nekk da ko war a def sa mbiru bopp parce que nag li ci ñàkk ay bakken kenn xamul nu ñuy toll bi bu ñu yàkkamti parce que yàkkamti yàlla sax yàkkamtiwul Dieu est patient yàkkamti dafay indi nga dugg ci loo war te dugg yàkkamti day tax nga yaakaar ni boo demee rek tekki am na coono yoo xam ne boo ko dajul fii ci apprentissage nga nekk jeune. yàlla mi nga xam ne boo demee fee nga xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg amul fii fee moo am coono tubaab bi balaa ngaa lekk ci moom ñaar fukk billaahi di nga daj loo xam ne mburu sax daju ko ci taal am na ñoo xam ne fii fii lañ jógee jaar voile normal dem Europe indi wuñu fii cent franc mënuñu fi indi cent franc ñi nekk fii sax ñoo leen dimbali kon ça veut dire tey balaa ngaa dem naan sax dangay dem aventurier tàggatal sa bopp ci coono commencé ko ci kër ga nga dëkk am looy ci kër dëkk lu mu yaatu yaatu yaatu yaatu balaa ngaa contribuer ci dëkk contribuer ci biir kër da ngay gis xale boo xam dafay yeewoo biir këram ba mu juddoo ba mu am 30 ans mosul am lenn lu mu apporter kër gi différence boobu la ñu am ak avec les les les autres pays il faut que tey. yow nga ne kër gi ma dëkk fi sama papa jur ma ci farata sunu Muhammad lan laa ban njëriñ la amal kër gi kër gi nekkul papa góor war di fay courant di fay ndox di fay leb yow lek lépp dañu la ko servi ba nga nekk magum jëm ça veut dire que yow tey arrosé fleur sax yow ñee nga ko ci biir kër gi arrosé fleur yow doo contribuer ci kër gi ko def ci kër gi bu foos yi bougé sax am am nga sax tayal sax auti dem weñ sax naa damay xool la moo fatt kër gi am na ñoo xam ne ci loolu lañ màgg ba toll yow boo màggee ci loolu ci feneen fii ci ci ci ci tayal boobu tey boo ne da ngay jaar ni Europe pour dem liggéey ngay nax sa bopp parce que tàmmoo coono nelaw ba midi une heure añ laal sa tee toog noonu nga ko bëgg jàppee ba kañ am na si ñoo xam ne nag il faut il ñu tàmbalee ko suñu bopp xam nga y a des yoo xam ne tey c'est des diplômés yoo xam ne en toute sincérité état moo war a jël insérer leen dugal leen ci yeneen xam nga am na côté boo xam ne état moo ci war a taxawu la jeunesse mais benn jeunesse am na jeunesse boo xam ne fii dañ fi nekk dañu tayal dañu yaakaar ni xaalis lu ñuy lijjanti la tayal ci yenn liggéey yi rëy ci yenn liggéey yi moo tax parfois ni la ñuy bëggal régler seen ay problème seen soxla lu ñu ko mën mais am na ci jeunesse boo xam ne dañ see des diplômés état war leen taxawu même si tu es un diplômé bul téye ci xaar diplôme bi rek pour yaakaar diplôme moo diplôme bi mën am na ñoo xam ne c'est des diplômés te ñu ngi am nekk ci yeneen liggéey ba keroog yàlla di ñëw euh, li may lancer rek mooy ñu bañ a yàkkamti yàkkamti baaxul te fii tey ba pare les sociétés ni ngi jàppale les les ouvriers man tey je te donne l'exemple euh, parfois da ngay gis ay sociétés yoo xam ne fii suñu doom yi suñu doomu dëkk bi ñoo fay yëngu te tey na leen war a jàppee ak na leen war a fonkee fay des nga gis ay sociétés étrangères yo xam tay ni len sen ay doomu rew di jappalé en toute sincérité c'est différent Sénégal dafa melni ni dafa bañ bokam dama lay jox exemple arena bi ak arena ak euh, maître Ablaye Wade j'avais des amis ay mbok yo xam dañ fay xey di fa mais tay ay turc ñoo gagné marché bobu arena bi ay turc a ko gagné? turc yooyu ko gagné sama digënté yalla dañu mettre ay conditions yu bax sen doomu rew ñuy que ko salaire ay 1,5 million par mois ñun doomu réew mi bi suñu dëkk ñun doomu bi salaire bi fort ci salaire deux la ñom tay turk ay étranger argent de poste par deux semaines 600 000. mille la yow ça veut dire que yow yow mi nga ne dëkk ci réew bi juddo ci réew bi maggé am neka neka qualifié xam électricien maçon qualifié salaire 200 000. Qui est un turc là. Salaire par mois 1 million 500 là. Am argent de poche. Argent de poche, je sais que la société turque bic euh, je pour que je un salaire de 1 million 500. 1 million 500, on verse directement de Kem. Si le chantier a 2 ans ou 3 ans, je suis un Turc. Parce que le Turc fait partie des pays qui ont le plus cher habitation. Je suis de Kem. dana am kër gu mu dëkk fii nag chantier yooyu yëpp di tax mu sooxe ay société sénégalaise mooy ne ci biir jàpp suñu doom yi mel ñu leen bëggul di leen di leen di leen di leen chantage bu ñu waree fayeku un million yow di nga dem wax ak euh, société euh, bi nga xam ne moo a marché ba ba nga yow xam ne yow tey yow doo gis sax sa bopp ci lii loolu dafay mel ni ñu dañ bañoon suñu biir loolu moo am ci stade Arena bi loolu moo am ci stade euh, Maître Abdoulaye Wade bi nga xam ne tey mën nga fa liggéey nga fa ba am fa ay at te mënoo ci gis sa bopp doom ñi nga xam ne dëkkuñu fi tey seen societé yi jàppale leen tey ba tey ku génn ci chantier yooyu mu pare di nga am kër goo dëkk di nga am oto boo dawal di nga di nga gis sa bopp ci loolu loolu nag dafa loolu nag bokk na ci li nga xam ne tey boo demee am na usine mèche bu nekk euh, mbaaw ay étranger ñoo koy moom mais ay sénégalais ñoo li ci biir sénégale yi ci boppam pour euh, étranger yi jàpp suñu doomu réew mi di leen noot ci sénégalais lañ mën a jaar comme moom mais un un étranger mënul ñëw jàpp suñu doo suñu doomu réew mi di leen manipuler di leen jox ay ay salaire ru salaire ru salaire ru sarax te jaaru ci sénégalais dafa mel ni sénégalais bëggul mbokku sénégalais te or que ñoo leen war a défendre ñoo leen war a défendre ñoo leen war a jàppale société étranger boo fi gis rek société Sénégal ma nga ci biir Sénégal mi ngi ci biir société foofu la ñuy jaar ne di def yu fa saay-saay jàppaleen di leen am na usine mèche bu nekk mbaaw.

teg na ci barem ci ci walu paiement trois cent war ko wessu mais il faut que mu am ay suivi am ay contrôle lolou bu amul rek moy euh, le président teg na def na ay efforts yu gigantesques mais malgré ça amul suivi il faut que am suivi am ay contrôle parce que nak ñun dañuy melni ni wuñ suñu biir parce que yooyu yëpp bu ko étrange société étrange yi jappé suñu njaboot gi ay sénégalais comme ñun jappu ñu def ñu comme ay nit yu dëkkul maanaam nga nek ci société duñ la mës nous le duñ de contrat indéterminé parce que les sénégalais comme yow nous ne ci biir dafa am xarit dafa na ma dafa chantier bu ñu démarrer man ak sumay xarit euh, euh, entrepreneur bi sénégalais la waaye ki chantier bi nar la mu mu woo entrepreneur il faut parce que Euh, liggéey bu am bu coono boo xam ay machine machine ñoo ko waroon def ay poutre poutre yu diis yoo xam ne machine yee ko waroon yëkkati te machine bi defu ko nit ñee koy def mun na dama leen di yokkal waa xam wax waa ji noonu jar ko boo yëg loolu ñoom ñëpp bàyyi chantier ba dem ba ci mu waa ji entrepreneur na ko yow comme que yow suñu mbokk sénégalais nga yaa ñu yéenewul dara ñun dañuy bàyyi ñun loolu mooy suñu problème ñàkk bëggante boobu soxorante boobu iñaanante boobu tey da ngay dem Europe tey nga financé fa def def fa benn def fa benn restaurant wala dara sénégalais bi nay na yaakaar nañ ni bu demee jënd ci yow lu mu lekk da ngay tabax fi étage iñaanante bi ak soxor boobu loolu dafa gangre suñu biir te sénégalais warul soxoree mborom sénégalais mi tey boo yàggee tukki di nga xam ne ñag yi solidarité bi nekk seen biir ñun sénégalais amul ci ñun kon il faut ñu jàppalante surtout nag fii parce que fléau bii ngay gis ay dem di voyager di tukki nii am na ci ñoo xam ne c'est

seetlu ci dëkk bi lii tooguñu la xam ko dañ dem sur le terrain yi ma lay expliquer nii <laughs> man du ma wax samay wax duma ko wax sànni ko nii de wala du ma wax lu ma lu ma lu ma maîtriser wul yii nii ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne tey peut-être temps bi moo ñu ko may rek parce que ñun li ñu doon tey yi ñoo ko def ci ñun. kon dafay jaaru tey am na ci yu bari yoo xam ne di ko creuser di ko dañuy am chance ñuy dox micro te nag bu ñu lay tàllal micro da wax loo xam wax li may wax nii lu ma maîtriser la.

jàpp sa ay doom di leen di leen def la di maanaam paiement bi sa dama naan paiement bi est-ce que du paiement sarax wala mendiant c'est pas normal jaaduwul loolu dafa war a dañ te yooyu nga gis yaa y a des milliers sociétés yoo xam ne ay étrangers ñoo ko créé jàpp suñu suñu doom yi jàpp suñu njaboot gi di leen fay ay fay ay salaire yoo xam ne tey ngay liggéey loo xam ne tey ñoom sañu ñu doom jëlee seen ay ay ay doomi dëkk di leen fay loolu loolu nag état ci war a taxaw. malgré que gis nañ le président ni muy ni xëyu ndaw bi ni ci investir mais doyul il faut ñu continuer ci lancer bobu li duuf ci nak bi xayul ci cin bi ñi ngi lay ziar di le contane di le ñaanal jàmm li <laughs> prochaine fois inshallah ñu gëna yaatal. inshallah di bëggee ñëpp ah. jaajëf jërëjëf jërëjëf